mi ñëw nag ci nodd ak liqaam daa wax ne noddu sunu su dëgër la ci fépp fu néegub yàlla nekk rek donte jàkk yi daa jege itam luñ jegee jegee rek bu waxtu julli jotee ñu nodd yëgle ne julli ki jot na loola sunu su dëgër la nodd goo xam def ga ak bàyyi ga ñooye moo amut waaye boo weesoo googu rek moom am na nodd gu war am na gu araam am na ku ñu sib am na ku ñu soog moom lay bëgg a wax kon nee na boo génne ibaax yéen tey des kon am na nodd gu war mënta ñàkk am na nodd gu ñu sib nga xam ne bañ ngaa def moo gën def ga am nodd gu araam nga xam sañu su koo def am nodd gu ñu sopp nga xam def ga moo gën bañ ngaa def mooy safaanu bañ sib nee na bépp dëkkub lislaam bu mag rek fardu kifaay la bu waxtu julli jotee ñu dégg nodd jib fa mu wane ne ñooña ña nga ci lislaam génnuñu ca waaye dëkkub lislaam bu mag waxtu julli ñëw te dégguñu fa genn genn noddu day nuru ak génn ci lislaam moo tax fardu kifaay la dëkk bu mag moom lu mu néew néew rek dafa ak noddu jib bu waxtu julli jotee ni mu amee ci farata nga xam ne am na faratay jëmm ju ne am fardu kifaaya nga xam ne bu ca ñenn ñi taxawee rek mu doy bu ko ñëpp bokk yi bàyyi ñëpp bokk am bakkaar noonu la amee itam ci sunna yi dana am sunna boo xam ne kenn ku ne yaa koy defal sa bopp waaye kenn mënu la koo defaale mel ne buñ ne jullig wetar maanaam rakka wetar buñ ne sunna la kenn ku ne moo koy defal boppam kenn mënu caa yóbbaale kenn sunna kifaaya nag mooy lu mel ne nodd mi mu wax jàkka ju ne bu waxtu julli jotee rek ñu nodd fa sunna kifaaya la mooy bu amee ku nodd rek dal nay doy waaye nag waruñoo seetaan néegub yàlla waxtu wa jot kenn kenn yëkkatiwu fa ak nodd nee na mbooloo moo xam ne ñu dajaloo ci béréb te jàpp nañ ne bu ñu noddee faaw dana am kuuy si moo xam ne ñoo nekk garabu penc moo xam ne ñoo nekk ci marché ba moo xam ne ñoo nekk ci tukki ñoo ci yemoo fekkee mbooloo mi jàpp nañ daal moom bu noddee am ku wuyu si rek moom kon sunna la ñu noddu bu dee mbooloo moo xam ne jàpp ñu ne kenn dara wuyu si nit ki ñañ tëj kaso nag ñu nekk ci kaso ba waaw ñooñu moom kon duñu sunaaj ñoom ñu noddu kuy tukki muy kenn muy mbooloo ñoo ci yem te it dañ ko tudde tukki rek waaye génn sax dem ca tool ya wala muy sàmmi yépp ci la bokk daañu sopp waxtu ji lu jotee rek moom moomee ci tukki ba mbaa moom moomee jëm ca tool ya na nodd rek nodd ga lu ñu sopp la moo xam kenn la moo xam mbooloo la saa yu xasee génn daal bëgg nañ fu ko waxtu ji lu jotee doonte xam na ne bu noddee kenn du ko wuy si it rek na nodd nodd ga lu ñu sopp la kon nodd gu ñu sopp ngoo ko am na yaari nodd yoo xam ne yu araam lañu genn ga mooy nodd ci waxtu wa jotul a nodd da yëgle ne waxtu julli wi jot na kon boo ko defee te jotul rek wax lu amut la kooku araam na julli suba rek lañu maye ñu noddal ko nodd gu yeete te du tee sax bu waxtu wa jotee dëgg-dëgg ñu noddaat noddu dëgg-dëgg ñaaral ba nag mooy jigéen noddu jigéen dañu bañ kàddoom yëkkatiku ba gis nga sax moom bu li xaam baa bu li xaamee da koy wax ca suuf kon jigéen noddu araam na kon noddu guñ siba ngoo ko maanaam julli naafila ba julli gu bokkut ak farata rek sib nañ ko ko noddal ba tey gépp julli goo xam ne waxtu xas na jàll dañ koy fay rek waaye waxtu wa jàll na sib nañ ko ko noddal xam nga dangaa waxoon ne mbooloo moom buñ génnee di tukki moo kenn di génn tukki ñooye moo te tukki boo waxal nañ doon dem tool la it moom rek sopp nañ waxtu julli jotee nga noddu mun waaye mbooloo moo xam ne nekkuñu ci tukki te jàpp ne buñ noddee kenn dina ñëw nekk ni ma ko misaale woon léegi ci ñan tëj ci kaso ba waaw ñooñu moom soppuñ ci ñoom ñu noddu lu may na nga xam ne dañ koo tàmm ñoom mbooloo mu di ko def ba nga xamee ne ñoom la ñu déglu ci xamee ca waxtu julli jot na am déet donte yow kenn nga ci sa kër tàmmuñ ngay noddu waaye boo xasee tabal ñi sag noddu ba yow la ñu déglu ci waxtu julli jotee da ngay doon doon kenn moo nga doon mbooloo ñoo ci yemoo bu fekkee dem nañ ba lay sukkandikoo ndax tabal nga ko nit ñi ci yëgle julli gi bu jotee kon say boo di ko def sopp nañ boo déggee ki noddu lu wax rek nga wax ko ba mu wax yaari ashadu yi wax bu jëkk bi bu ko tàmbalee wax waxu kawe ba nag waxu wax ba gën a kawe muy bu ñaareel ba nag nga bàyyi nettali bi bu dee ci yoon Maalik moom ki noddu bu ne allahu akbar nga wax ko bu ko waxaatee nga wax ko bu ne ashadu an la ilaha illallah nga wax ko bu ko waxaatee nga wax ko bu ne ashadu anna muhammadan rasulullah nga wax ko bu ko waxaatee nga wax ko bu yëkkati kàddoom ci kaw nag di baaguwaat ashadu yi nag foofu ngay bàyyee yow foofu ngay bàyyee nettali ba waaye nag sopp nañ bu yëkkatee ashhadu an laa ilaha illallah ca kaw nga wax ne shahidtu bima shahidta bi raditu billahi rabban wa bil islaami diinan wa bi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan wa rasula su yëkkatiwaatee ashhadu an laa ilaha illallah yawit nga waxati loolu bu yëkkatee ashhadu anna muhammadan rasulullah ñu sopp nga wax shahidtu bima shahidta bi marhaban bi habibi wa qurrati ayni muhammad ibni abdillahi sallallahu alayhi wa sallam bu yëkkatiwaatee ashhadu anna muhammadan rasulullah yawit nga waxaat loolu su waxee hayya ala salaah ñu sopp nga wax ne marhaban bil qaa'ilina adlan marhaban bis salaati ahlan wa sahlan su ko waxaatee nga waxaat ko su waxee hayya alal falaah ñu sopp nga wax la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim bu dee noddug suba su waxee assalaatu xayrum min an nawm ñu sopp nga wax sadaqta wa bararta wa ahsanta wa anta xayrul qaa'iliin su ko waxaatee nga waxaat ko bu ne allahu akbar nga wax yowit allahu akbar bu ko waxaatee yowit nga waxaat ko su daaneelee laa ilaha illa allah nga ne laa ilaha illa allahu waxdahu laa sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli cheyin qadir daldi julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te boo ko mënee defee assalaatu al ibrahimiyatu moo ca gën soo ko mënut noo jullee ci moom rekk baax na nga dolli ca nag اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابهزه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد خينيت نيوخ وابهزه مقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد bokk na ci lañ sopp ci noddu booy noddu nga jublu xibla lu may da ngaa bëgg nag wet yépp dégg ko kon mën ngaa wëreelu boo yëkkatee sa kàddu wax ci wet gee wëlbatiku waat wax ci wet gee doon ngaa wëlbatiku jëm soowu sax wan xibla gannaaw it waaye da ngaa bëgg ñu dégg rek du wàññi dara waaye nag bu dee jamono yi nga xam rajo am na moom bu fekkee ci rajo ngay nodde moom haut-parleur yi moom du aajowoo ngay mooy xibla mën ngaa jublu xibla ndax moom bu soobee yàlla kàddu gi dana sori nañ ko bëggee sayid dañoo jublu kii noddu kàddoom xumb te neexam mu ne boole yooyu yaar moo ci gën waaye nag bu fekkee ne kàddoom xumb neexut it te bu waxee baat na mu war a doon rek sunna si mu am na moo tax yéen ji wax nag mooy mu taxaw ci lu yëkkatiku ndax bu taxawee ci lu yëkkatiku day tax kàddu gën a sori waaye loolu nag bu dee rajo yi nga xam ci ngay nodde bu dee ci rajo opérateur ngay nodde moom say boo taxaw fa nga taxaw du aajo nga yéeg ca kaw ndax bu soobee yàlla moom dana ko jottali waaye bañ daan noot noonu nga xam ne yoroo rajo nag kon moom nga taxaw ci ay mbooluñ tegale ba leneen lu kawe daal mooy gan. dañu bëgg booy noot du fekk nga amug laab waaye nga noot du fekkul nga amug laab du tee noot nga baax sax waaye tàmmuwuñ ko dañu bëgg booy noot nga taxaw te bañ a toog lu may da nga am ngànt nag taxawaay bi yomb la kon mën ngaa toog noot doon silmaxa ak noot dam wàññiwul dara daga moom dana mën a xam waxtu rek dara nekku ca ñay noddu limu ëpp kenn wàññiwul dara su fekkee du timis nag ñay noddu bu ñu limoo ñu kenn kennoo moo ci gën kee noddu daaneel jox keneen kee noddu daaneel jox keneen teewul nag mën nañoo àndandoo waxandoo waaye boobaa waaye nag su boobaa bu kenn déglu sa moroom dañuy bañ ñu def ko ne ni ñuy jànge njàngum yëkkati di bëgg seeni kàddu yemoo di daanoondoo déedéet bu fekkee daal dañoo àndandoo di noddu moom di waxandoo kenn ku nekk day jàpp sa noddu bopp rek fexe ba baat ya jub doo ca bàyyi dara dara ni nu waxe woon léegi mooy noddukat ya bu ëppee kenn te du timis la ci gën mooy ñu kenn kennoo ta bañ a àndandoo di waxandoo waaye nag bu dee timis moom timis waxtoom dafa gàtt la ci gën mooy kenn rek noddu su fekkee nag dañoo bëgg a def mbooloo ñaar mbaa ñett kon dañuy waxandoo rek benn yoon te kenn ku ne sàmm sa noddu bopp bañ a déglu sa moroom waaye bu ñu fa jàkkee bëgg a tegaloo ci timis kenn du jox kee kenn du jox kee rek mën naa am ñu yeexee timis ja nee na bu dee tisbaar ak gee ak suba moom li mu noddee mën naa mat juróom ba ci fukk te du wàññi dara takkusaan moom nee na borom xam-xam yi nee na mas na ko noddal di tàmbalee ñett noddu ba ci juróom nee na borom maddaxal ibnul haaj nee na tisbaar mas na ko noddal la dalee ci fukki noddu ba ci fukk juróom moom borom ma daxal nag ba muy tudd takkusaan ak gee daa wax ni moom manees na leen noddal di tàmbalee yetti noddu ba ci juróomi noddu suba moom day ñëw ci waxtu woo xam day fekk nit ñi nekk day fekk nit ñi nekk ci ay nelaw daañu taamu ñu noddal ko noddu yeete dañuy seet nag boo defoon guddi gi juróom benn xaaj bu juróom yee jàllee rek mu des benn xaaj ba booba daañu sopp na ñu nodd noddu yeete ñu xasee tàmbali nodd nag moom mën na ñëwee rek di nodd di nodd di nodd ak noddaal rek ba ba ñu àgg ci suba jot dëgg dëgg nag ñu daal di nodd noddu salaatu noddu wér ga ñu boole asalaatu xayru minan nawm waxan nan ko mooy rek ñay noddu buñ ëppee kenn muy timis muy geneen mën nañoo daje waxandoo benn yoon waaye nag kenn ku ne day sàmm sa noddu bopp te bañ a jéem a tollooleeg sa moroom maanaam bu dee timis moom li ci gën mooy kenn rek noddal ko ñu daal di julli nee na mu nodd ba àggal naa julli jot na xadari salaatu bi mu noddee rek wane na ne julli jot na ndax nodd bi day xam ne ne julli jot na kon nag nodd ba noppi di ci tegaat julli gi jot na wax yu mel noonu daal moom bi daa rek la ba tey nee na gannaaw bu noddee ba noppi bu cay teg naa suba jot na de suba jot na de lu mel noonu sib nañ ko ndax bi mu noddee rek xam nañ ne suba jot na wala mu naa gaaw leen ci julli waaye ñëw leen waaye julli gannaaw bu noddee ba noppi loolu jaru ko ndax nodd bi rek xam le na liñ bëgg a xam le ne kat kay noddu war naa fexe ba xam baati nodd yi bu wér a wér ba nga xam ne bu ko dee wax du ca juum waaye di noddu di yàq baat nodd ga moom ëpp naa def lool dañoo bëgg ki nodd xam baat nodd ya bu wér a wér boole waale ca xamaali waxtu wa nga xam ne it ca la war a yëkkati nodd ga waaw waaye bu fekkee xamu ko waaye day sukkandikoo ci ku ko xamit ba tey baax na waaye boo ko mënee xamal bopp waxtu wa nag xam gu wér a wér loolaa ci gan kay noddu faaw rek jullit la war a doon ndax bu fekkoon da di bi yéefar mu ne na noddu jublu caa tuubaale itam dana jot a tudd ay baat ci nodd gi te du àggagun ci baat yi nga xam ne mooy seere ak jullitam ku mel ab dof bu dikkoon ci waxtu wa julli jotee mu wax baat yi na mu tëddee te juumu ci itam waaye daa fekk mu dof ba tey du baax du tax nodd ga mat kon sunu sañ sàkk woon amagut mu kaalaf lañ bëgg mu noddu teewul nag gone bu fekkee ne day sukkandikoo ci mag mag moo koy xamal waxtu wa xamal ko noddu ga na muy nodde mu dem noddu ba tey baax na wa zakarantey góor góor gi moom ab sart la ci ndax ne nga woon noddu jigéen daa araam maandu nag moom dañ ko caa sopp rek waaye bu fekkoon ne kàccoor la day def lu aay itam waaye teewut fexe na ba noddul nam baaxi rek dara sikku ci rek du tee nodd ga baax ñay nodd bu ñu limoo te du timis la ci gën rek mooy ñu toppante kee nodd jox moroom ma kee nodd jox moroom ma loolu moo gën bokk waxandoo ndax li ci ëpp buñ bokkee waxandoo rek am ci ñoo xam ne duñu sàmm seenug nodd ba day mujj mu am sikk bu dee timis nag moom duñu nangu tegaloo googu kenn nodd jox kee kenn nodd jox kee ndax loolu mën naa andi yéex a julli timis ja timis moom la tëgan rek mooy na kenn képp nodd su mënta ñàkk nag ñu koy xëccoo ne faaw ab lim ñooy nodd nag kon moom nañu waxandoo nee na juróom ñii ñoo ma sa noddal yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wuute nañu ay daraja ndax bilaal moom daana ko noddal ci bu nekkee ci tukki ak bu nekkul ci tukki aw si itam nee nañu ku neexoon kàddu la ba mu jënd sax moo daan nodd ca màkka nga dolli ca nag siyaad ak xomar ak saad ñuy juróom bokk nag waxandoo ci nodd moom ku ñu wax Hisham moo ko sos moom moo fekkan ñi daan nodd ci tegaloo kee nodd jox moroom ma kee nodd jox moroom ma mu daal leen di boole ñu bokk waxandoo benn yoon def mbooloo loolu daal moom moo ko njëkk a sos moom Hisham gannaaw ba mu nekkee xalifa yenn waxtu wa Hisham di boole ay noddkat ñi bokk noddandoo ñett képp la ñoon booba te ñett ñëpp fi leen yonante bi bàyyi woon te it ñett ñooñu kat noddal nañ mboolem xalifa yi ba mu des aliyu aliyu rek lañu noddalut kon bokk noddandoo ñett ko cosaanoo waaye gannaaw ba nag la ab lim bu bari bu ëpp ñett di dajaloo bokk di noddandoo dalaa bëgg xamal nag nañu nodde dëgg-dëgg mu ne la ku bëgg a nodd te mu aw yoon day na ko wóor ne mboolem baat nodd yépp yépp bu ci nekk bu ci nekk dañu koy wax yaari yoon ba mu des laa ilaha illallah baat bi ci mujj muy laa ilaha illallah moom benn yoon lañu koy wax waaye ba ci assalaatu xayru mina nawm ji ñuy wax ci noddu suba sax dañ koy wax yaari yoon bu ko defee nee na booy nodd buy fàttee ni yaari ashadu yi da nga leen njëkk a yëkkati del leen yëkkati waat nag yëkkati boo xam ne ca bu ñaareel ba lay gën a xumbe ci bu njëkk ba di sax du tee bu njëkk ba xumb waaye nag na nga koy yëkkatee ca bu ñaareel ba moo war a gën a xumb wax wu njëkk ba nee na booy nodd nag fa sa baat di daaneele doo fa maas masque nga fa dëkk da nga fay def masque nekk te dindi nga fa nekkoon xam nga allahu akbaru rup lay maas waaye booy nodd ngay wax allahu akbar dafa masque nekk ashhadu an la ilaha illa allahu masque lonk moo fay nekk waaye booy jàng booy nodd ngay wax ashhadu an la ilaha illa allah fexe ba jàng ah boobule hayya ala salaati doo ko wax booy nodd ngay dëkk ñaar tomb ñi dafa masque nekk wax ne hayya ala salaa fexe ba jàngaaj ah boobu yépp noonu lay mel nag dañoo bëgg daal booy noddu boo waxee ab baat teg ca ba ca topp teg ca ba ca topp rek waaye doo fa teqale dara nit ki buñ la nuyoo bul fa jaarale fay nuyoo ba buñ la nuyoo sax bul junj di wan kooku ne ko fay naa la kat ndax damay noddu door a jàll ca noddu nga déedéet dañoo bëgg daal booy noddu moom baat boo wax rek teg ca ba ca topp dara bañ a dox ci diggante ba su fekkee lañ ko aaye woon ci muy noddu ba noppi di ko teqale maanaam wax ba noppi ne tekk bañ a waxaat mbaa mu fi jaarale dara def na ko lay tax ñu ne nodd ga yàqu na na ko bàyyi tàmbaliwaat geneen mooy rek mu yàgg ba nga xam ne ku déggoon muy nodd day wax na ah ma defoon daa nodd ba noppi mbaa mu defee ne geneen nodd la gu bokk te googa su demee noonu daal moom seeboo mu tàmbaliwaat waaye bu dul loolu nag kon day susale ci baat yi mu waxan rek jàll yana mukallaf bu góor muy julli moom dong moom li xaam sunna si jëmm la maanaam moom faaw moo ko mën defal boppam dool am sunna si bu fekkoon ne dañuy mbooloo moom bu kenn xasee li xaam rek yóbbaalañ ci des waaye nag bu dee kenn képp koo xam ne góor la di mukallaf muy julli moom li xaamam sunna si jëmm la sunna si jëmm la mooy moom rek moo ko mën a defal boppam góor goo xam day julli ànd ki jigéen nag kon moom sunna la ci moom ndax jigéen li xaam dañ koo sopp rek ak itam wax ko ci suuf bu dee jigéen waaye nag góor gi nag mooy julli ànd jigéen ñi kon moom moo leen di jiite kon moom ci boppam moom lay sunna ci moom mu li xaam nee na kay li xaam na fexe ba amuk laab te bu mu taxaw rek li xaam noonu te amul ak laab te it na jublu xibla te it na taxaw bañ a toog yooyu lépp dañ koy sàkku ci kay liqaam sopp nañu kay liqaam nara bokk ca julli ga waaye nag di liqaam te naruta bokk ca julli ga loolu sopp ñu ko nee na liqaam bi moom sunna la doonte sax julli ga tey gu ñuy fay rek waaye bu xasee nekk julli faras daal moom doonte bor la bu ñuy fay du tey rek ñu liqaamal ko sunna la donte daal lim itam diyaal ji li mbaa yett mbaa yu bare bare du tee genn gu ci ne rek sunna la ñu li xaamal ko li xaamu boppam mu ne ñenn ñi nee nañu boo ko tayoon bañ a li xaam itam du tee julli ga baax te jooju wax moo gën a wóor am ñu ne nag boo ko tayee te li xaamoo julli ga du baax jigéen bu dee julli moom rek nga xam ne àndut ak góor daañu sopp mu li xaam ba noppi nag wax ko ca suuf bañ koo biral jigéen ji moom mu boole yaar yooyu li xaam ba noppi yàllu ko wax ko ci suuf yooyu yaar yëpp yu ñu soppale ci moom nee na booy li xaam da ngay wax baat bu ne benn yoon ba mu des allahu akbar allahu akbar moom ci njëlbeen gi ci mujj yëpp da nga koy wax ñaari yoon waaye ku bokk te moom rek benn nga koy wax tayit fu nekk na nga fa maas maas nga fa dëkk ngay wax allahu akbaru allahu akbaru ashhadu an la ilaha illa allahu fu nekk nga maas ko la fa dëkk lu may nag fa nga xam ne fa la sa kàddu taxawee parce que kàddu taxawee mu say ba maas ko maas ko nekk ndax loolu rafetal aw njàngin la bu dee ci arab yi moom arab yi duñ tàmbali ab baat maas ko nekk waaye buñ dee taxaw itam ci ab baat duñ ko maas maas ko gu bëgg te goog nekk. nee na yow nag bu fekkee li xaamoo da ngaa bëgg a bokk ci julli gi rek yaay seet bu la neexee bu waaj a tàmbali li xaam nga jóg xaat fi saa daal di taxaw bu la neexee bàyyi ba mu nekk ci biir. liqaam bi nga door a jóg bu la neexee itam bàyyi ba mu liqaam ba daaneel nga door a jóg